ndax yàlla moom dëgg te dëgg bon même bu yéex tam comprendre moo pourquoi parce que je n'ai rien fait man defuma dara amul benn artiste au monde buy cracher sur proposition de cent cinq concerts en Europe y en a pas alors suñ ma proposé woon par exemple euh, a affaire tabax ay immeuble xaw ma ci dara beneen métier xaw ma ci dara mais liñ ma proposé ça rentre dans le cadre de ce que je fais depuis quarante cinq ans je signe des contrats depuis quarante cinq ans et ils ont bien préparé ils bien préparé leur piège maanaam seen piège bi xam naa ne togg nañ ko bu baax ba mu ñor ci li may liggéey lañ ko jaaral. ñan la mais xaw ma ñan la. man man li ma xam mooy maanaam ñi ñi nga xam ne ñoo doon wax ak man depuis la Suède. après la comprendre que ne sax même portable yi nga xam ne moom lañ ko doon wooyee depuis la Suède ndeket ñoom ñu ngi fii donc ma mën nañ nekk fii di la wooyee ci portable boo xam ne Suède lay jógee ñëwaat ci yow loolu yëpp je l'ai compris après alors j'ai toujours dit que. du ma defar ko faux billet xaw ma nu ñuy defaree faux billet mësuma defar faux billet ànduma kuy defar faux sama yoon xaw ma sax naka la ama machine bu defar faux billet tooñ nañ ma parce que euh, téye nañ ma huit mois pour rien tilimal nañ sama der tooñ nañ sama famille tooñ na ma tooñ nañ samay fans et ils m'ont fait du tort alors tey bu ñu nee euh, bàyyi nañu lépp alhamdulilah ma ci sant yàlla bu baax mais le mal est déjà fait et loolu je m'en souviendrai jusqu'à la fin de temps du ma ko fàtte mukk parce que moom fay di toog juróom-ñetti weer yi ma toog ak ñaari fan ci loo xam ne man la concerné personnellement jullit laa nag damay gëm dogal suñu borom alors su fekkee ne que yàlla ànd naag ñoom ci pexe bi ñu ma pexeel dafa gën ci man parce que am na yàqin na leer na ma ne bu loolu amul woon ba léegi maa ngi ci biir suuf loolu moom c'est personnel lu ma wóor la maanaam natt bi lu gën ci man la donc ma jàppe ko noonu natt bi gën a métti nag mooy natt bu ànd ak tuuma waaw mais euh, ñu ma ëpp maqaama dund nañ donc c'est comme ça c'est comme ça.